mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu këru liggéeyukaay bii di C3S compagnie Serigne Seck Sénégal moo ñëwaat ak yéen ci jongante mbindum alxuraan bi muy amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di dëppoog ñetteel bi édition ku ci bëgg a bokk da ngay bind xët ci alxuraan bind sa tur ak sa sant sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci barabu C3S bi la gën a jege wala nga yóbbu ko ci fépp foo xam ne rabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi am na fa li bees ci ren bi mooy jigéen ñi dañu leen di beral seen concours bopp ak jongante bi ñuy amal ci région de Matam ngir doore fa jongante bi ñu namm amal ci gox yi at yi di ñëw ñett ñi jiitu ci concours national bi danañu am ay neexal yu ñu leen jagleel premier bi 6 millions deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions bu dee ci jigéen ñi première bi 1 million 500 deuxième bi 1 million troisième bi 500 000 francs bu dee concours bay am ci région de Matam premier bi 500 000 francs deuxième bi 300 000 francs troisième bi 200 000 francs terewul nag ku bokk ci tànn bu njëkk ba dinga am ay neexal yu ñu la jagleel dina door 1er janvier 2020 war a jeex 31 janvier 2020 ku ci bëgg yeneen di leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh بنعمة ربك بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعبده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة حديثنا اليوم يتناول بعضا من الوصايا الخديمية يقول الشيخ أحمد الخديم هذه فائدة تنفع كل من أراد الانتفاع من أراد أن لا يضيع شيء من أعماله فليقدم النية قبل كل عمل ومن أراد أن لا يفتضح في الدنيا والآخرة فليترك الإسرار ومن أراد القرب من الله تبارك وتعالى فليتدبر في آياته ومن أراد أن لا يموت خلبه falyajtanib mujaalasatal musirriin wa man araada xayaatal xalb falaa yufaarixul ulamaa al aamiliin wa man araada an yufaarixa damba falyulaasimi tawba wa man araada an laa yuxsiyahu llaahu tabaaraka wa taala falyulaasim addikr wa man araada an yataannasa billaahi subhaanahu wa taala falyulaasim tilaawa wa man araada an yufaarixahu yóoba nafsi falyulaasim salaata ala nabii sallallahu alayhi wa sallam wa man araada an laa yaqruba minhu seytaan fal yajma bayna tilawati alquran wa salaati ala annabiyi sal allahu alayhi wa sallam wa man araada ajru saa'im wa huwa muftir fal yumsik lisaanahu an kulli ma la faidata fihi أيها الإخوة من وصايا الخديم أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أراد أن من أراد مسكنا لا ينتقل منه إلا إلى الجنة التي وعد المتقون فليسكن في أوامر الله الجميل فليسكن في, أما في أوامر الله الجميل wa man allati hiya maskanul xadim man sakkana fiha sakkana maay wala yufaarixuni ata yufaarixaha walyantaxil min manahillahi aljalil wala yaskunuha wa qaala aydan wa isa araada lixtiraasa fi nafsih aw fi daarihi aw fi ahli falyaxtaris bi niyati alxayr li kulli maxluuq wa xawli alxayri wa mulaasamati alxayr wa infaaxi almaal yanju fi dunya wal axira jaalana allahu min lazina yastamiuuna alxawla fa yattabiuuna axsana mbokk yi ginnaaw buñ jullee ginnaaw buñ santee suñ borom julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ci suñ borom mi nga xam ne tëlewul dara te mën na nu ne te am na kàttan gu nekk mu yàggal fi seex Mouhamadou Mountakha gën koo may wér ak kattan ak tal ba lépp loo xam ne yéeneen na koo defal sëriñ yéene na koo def ci lislaam mu def ko ci defin wu kawe jotam te ñu ànd kook moom defal ko itam képp bépp jullit boo xam ne lay li la tax a jóg wala lii sa taxawaay mooy lislaam yàlla na la suñu borom kattanal jox la ak man ba la nga ci yéene nga def ci lu kawe sa njot tañ daje ci ci ngërëmul suñu borom ñu mel ni nag ajuma ji weesu ñi ngi doon waxtaane lu am solo loo xam ne lu rëy la ci suñu borom muy jéggulu jéggulu nag dañuy gën a woon ne lu rëy la ci suñu borom moo dina suñu borom ci loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu ko wax dafa wax ne bu fekkoon ne day ñi nekk ci kaw suuf jëpp dañoo nekk rek ci li war a nekk kenn juumu ci nee na bu boobaa dan nga xam ne kenn du jégglu kon ci moom loola dana jar moo dana ko jaral mu indi fi ñeneen ñoo xam ne dañuy def ay bàkkaar di di ci boobu kon loolu di ñu woon fi nga xam ne fi la teg tuub ak ni mu ko rëyale waaye nag ni mu rëyale tuub ak fi mu ko teg itam am na loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ko moo di ne képp koo xam ne yaa ngi wane ne yaa ngi tuub te la nga la tuub ga ngay la ngay tuub yaa nga ci dëkk nee na dafa mel ni koo xam ne da ngay da da ngay da ngay da ngay da ngay fontoo suñ borom loolu lay ko niru day mel ni kuy fontoo suñu borom kon mu mel ni tuub lu am solo la lu mat a def la waaye nag boo koy def itam day ànd ak pas-pas day ànd ak itam ak dogu ci bañ cee delluwaat mën nga caa delluwaat nag ndax doomu adama xam nañ ne doomu adama ku doyadi la loolu itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ko ne am na koo xam ne day da dafa dafa dafa dafa def njuumte jéggalu suñ borom suñ borom jéggal ko mu demaat ba mu yàgg daya di doomu aadama feeñawaat feeñuwaat ci moom mu jéggaluwaat ci suñ borom ba mu ci suñ borom suñ borom wax ne kii kat xam na ne maay boromam xam na ne maay borom maay borom kattan maay borom sañ-sañ mën ci moom lu nekk ba tax na mu dellusiwaat bi mu defee njuumte mu jégg mu jéggaluwaat mu dem mu demaat ba mu yàgg doomu ndaya di doomu duggaat ko mu jéggaluwaat borom nee na ba mu ba mu àggee foofa nag suñ borom dafa mujj wax ne kii xam na ne maay maay boromam xam nañ maa am sañ-sañ ci moom xam nañ maa man ci moom lu ne kon léegi jéggal naa ko to dootuma ko topp dara mu mel ni kon loolu jéggalu lu am solo la lu mat a bàyyi xel la waaye nag day ànd ak dogu ndax nit ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne képp koo xam ne da ngay da ngay ba noppi te saa delluwaat ca loola day fay mel ni koo xam ne da daa day fontoo boroomam te loolu yaakaar naa ne ku ne war na cee jéem a mucc mu mel ni nag tey dañoo indi loo xam ne ay ndénkaan la yoo xam ne Sëriñ tuwaa moo ko doon dénkaan moo ko daa dénkaane te mu doon loo xam ne danañu gën a dimbale ci suñu dund jaar ni mu war a jaar ci at ci fii ëllëg yi itam ñu mën a dajee ngërëmul suñu borom loola li ci njëkk mooy dafa wax ne képp lii daal lii ma leen di bëgg wax nii njariñ la loo xam ne képp ku bëgg a jariñu mën nga ko téye ndax dana la jariñ ci àdduna ak ra bi ci njëkk mooy képp koo xam ne da ngaa bëgg lépp loo jëf suñu borom nangul la ko téyel la ko na nga bala ngaa jëf loolee danga cee cay ànd ak yéene ju sell ci am am pas lii may bëgg a def ngir suñ borom day suñ borom yàlla na ma ko defal mu mu mu doon jëf yi gën a rëy ci suñ borom nee na boo ko defee loola dana tax ba jëf ji dootu sa du sànk ba mukk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ne innamal a'malu binniyat kon mu mel ni loolu la bëgg a wax fii ci li mu wax mu ne teguwaat ci ba tam ne bu ko képp koo xam ne bëgg nga doo doo doo geccewu ci àdduna si doo geccewu doo geccewu itam ëllëg àllaaxira nan ngay def mooy da ngay bañ a da ngay bàyyi def di def ak njuumte ba noppi sax ca ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañ ne kullu ummati muaafan illa al mujaahiruun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal nañu ne nit ki day doome xeetu xeetam wi day ñëpp ci mujj ci jàmm rek la ñuy mujj bu ëllëgee lu dul ñi nga xam ne nag dañuy jëf ay jëf yoo xam ne ay njuumte la ba noppi mel ni dañ koy damoo wala mu mel ni dañ dañuy wone ne da da dañ koo sañ wala dañoo am dañoo am ak man ci war koo def loola kooku nee na yonent bi sallallahu alayhi wa xam la nee na kooku kat bokk ci ñi nga xam ne ñooy mo mucc bu ëllëgee ci ci suñu borom mu ne bu tegaat ci itam ne képp koo xam ne da nga bëgg a jege sa borom li ngay def mooy del fat del del settantal xéewal yi del settantal tiimaan yi nga xam ne moom la suñ borom def ci kaw suuf ak ci kaw ak ak ci suñ kaw ak liñ ak ak ak sa bopp yow ci yow ci sa bopp kiimaan yi mu def ci yow boo ko dee settantal waxtu bu nekk loolu da lay gën a xiir ci nga gën a bëgg suñ borom da lay gën a xiir itam ci nga gën a jege suñu borom mu ne beneen bi gi teguwaat mooy am na loo xam ne day boo ko dee def nee na sa sa sa sa xol du du du dee mukk te kenn ku ne xam na ne xol bu dee mooy xol bi nga xam ne dara lu baax mënatu ca dugg ku bëgg ku bëgg nag sa xol li dund waxtu bu nekk nee na ni ngay def mooy dangay ngay bay bàyyi de di toogandoog ñi nga xam ne dañoo sax ci ay bakkaar te te duñ ko bàyyi di waxtu mu ne ñu ñu gën di ko yokk mu ne teguwaat ci mu teguwaat ci itam ne képp koo xam ne da ngaa bëgg sa xol di dund te xol buy dund kat lu kawee ci suñ borom la ndax suñu borom ba muy ba muy wanee ne jullit ñi nga xam ne dañoo dëggu ñëpp dañoo dëggu lool boole woon na ci alladina ida zukira allahu bu xulubuhum kon mu mel ni li nga xam ne nag mooy tax sa xol di dund mooy dangay ngay dëkk dëkkaaleeg ñoo xam da ngay takkoog ñoo xam ne boroomi xam-xam lañ ba noppi tey jëfee nag seenu xam-xam nee na boo defee loolu sa xol du du dee mukk boo bëggee itam da nga koo xam ne da ngaa def ay bàkkaar te bëgg a tàggoog boom nee na li ngay def mooy da ngay jéggalu suñ borom mu ne képp koo xam ne itam da ngaa bëgg suñ borom du la bàyyi du la du la gécceel du la bàyyeeg sa bopp waaye dana la taxawu nee na nga doon koo xam ne waxtu wu nekk na ngay fàttaliku suñ borom te ko tudd bari bari looy tudd suñ borom boo moo tegaat ci itam ne boo bëggee doon koo xam ne dangay wettilikoo wéttalikoo suñ borom nee na na ngay saxal di jàng alxuraan ndax boo boo nekkee boo dee jàng alxuraan da ngay xam ne yaa ngi jàng yaa ngi waxi suñ borom kon nag day mel ni yaa ngi toog ak moom di di wéttaliku ci moom mu ne beneen bi ci teguwaat mooy koo xam ne dangaa bëgg a taqalikoo sa sa ayib yi nga xam ne moo nekk ci yow lan ngay def mooy da ngay faral di bari looy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne beneen bi ci teguwaat mooy képp koo xam ne da ngaa bëgg mucc ci say ci saytaane mi nga xam ne suñ borom moo nu waxal boppam ne inna saytaana aduwun lakum fattaqisuhu aduwa ku ci bëgg mucc nee na da ngay doon koo xam ne da ngay boole da ngay bare looy jàng alxuraan boole ko di julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag képp koo xam ne da bëgg am yool yool boo xam ne yoolub koor te fekk na booba yow wóoroo waaye nag bëgg nga am yoolub koor ndax yoolub koor lu rëy la ndax suñ borom moo waxal boppam ne man maa ko maa koor maa ko moom te maa koy fayal maa koy fayal sama bopp asiyaamu lii waa naa aji si la kon mu képp koo xam ne da ngaa bëgg nag wóoroo waaye bëgg nga am payu koor nee na da nga doon koo xam ne dangay ngay téye sa làmmiñ ci lépp loo xam ne lu la du lu du amul la beneen ba ca teguwaat buy wax ne képp koo xam ne da bëgg a dëkk ci kër goo xam ne boo fa toxoo àjjana rek ngay def direct doo am feneen foo jaar moo ne booy kër gi ngay dëkk mooy nga dëkk ci ndigali suñ borom yi nee na ndax kër googee kat man foofee laa dëkk te képp koo xam ne dëkk nekk nga foofee yaa mën a dëkk te doo te doo te doo du ñàkk dëkk man mukk li feeg nag jóge woo ci loolu nga xam ne moom nga nekk mooy sax ci ndigali suñu borom yi mu ne nag képp koo xam ne na nga ci boole itam di tuxu nag ci ci tere yi nga xam ne moom la suñ borom tere te bul ko jege ndax foofa moom dëkku fa te fa dëkk yitam dëkk dëkk dëkkut ak yow te du la jege beneen bi ci teguwaat mooy dafa wax ne képp koo xam ne da ngaa bëgg a mucc te loolu doomu adama juy dox ju nekk yaakaar naa bëgg na ko bëgg naa mucc ci këram bëgg a mucc ci njabootam bëgg a mucc itam ci bëgg naa mucc ci boppam bëgg a mucc ci këram bëgg a mucc ci ak njabootam maanaam gàllaaj goo xam ne dana tax nga dana tax nga mucc yow sa kër mucc sa njaboot mucc loola li la koy may mooy da ngay doon koo xam ne da ngay yéene aw yiw doomu aadama yépp da ngay doon koo xam ne itam da wax aw yiw képp da nga doon da ngay doon koo xam ne itam bi ngay wax aw yiw te di ko yéene da nga caa sax boole koog li nga am nag nga di ci dimbale doomu aadama yi kon nee na da mucc àdduna ak alaxira loolu nag yàlla nañ ko suñu borom defal mu doon ay ndénkaat yoo xam ne yaakaar naa ne matale na te mu doon lu mat a bàyyi xel doon loo xam ne itam bu ji saxee suñ borom dañu jàppandal yàlla nañu suñ borom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom man yàlla nañu téyal boppam ba ndigal yi wala ak wala nekkaan yi nga xam ne dafa wax ne jariñ la luy jariñ doomu aadama yëpp mu doon loo xam ne danañ ko téye ban jariñ ndax ñu man cee jariñu àdduna ak alaxira loolu yéen suñ borom mën na ko jàpp ne ko yàlla nañu ko defal rabbana innana zalamna anfusana wa illam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna minal xaasirin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 والقلم وما يسطرون mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu këru liggéeyukaay bii di C3S compagnie Serigne Seck Sénégal moo ñëwaat ak yéen ci jongante mbindum alxuraan bi muy amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di dëppoog ñetteel bi édition ku ci bëgg a bokk da ngay bind xët ci alxuraan bind sa tur ak sa sant sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci barabu C3S bi la gën a jege wala nga yóbbu ko ci fépp foo xam ne rabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi am na fa li bees ci ren bi mooy jigéen ñi dañu leen di beral seen concours bopp ak jongante bi ñuy amal ci région de Matam ngir doore fa jongante bi ñu namm amal ci gox yi at yi di ñëw ñett ñi jiitu ci concours national bi danañu am ay neexal yu ñu leen jagleel premier bi 6 millions deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions bu dee ci jigéen ñi première bi 1 million 500 deuxième bi 1 million troisième bi 500 000 francs bu dee concours bay am ci région de Matam premier bi 500 000 francs deuxième bi 300 000 francs troisième bi 200 000 francs terewul nag ku bokk ci tànn bu njëkk ba dinga am ay neexal yu ñu la jagleel bi dina door 1er janvier 2020 war a jeex 31 janvier 2020 ku ci bëgg yeneen di leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh بنعمة ربك بمجنون